ci xëtam mu njëkk loolee nga xamante ne daal moom moo jëm ci mbiruk douane ak seen nag liggéey bi ñu nekk di wéyal trafic de drogue bëgg nañ nag mu daal di fi jógee ba kenn dootu ci wax loole la douane daal di def defanat nag ab xayma ci li nga xamante ne daal moom mooy mbiruk cocaïne billet noir waaye bokk xaalis gu salte gi nga xam ne daal mu ngi fay dugg loole bokk ci li nga xamante ne nii suñuy naataango def nañ ci tey ab jàngat bu yaatu ñu ne ñu nag Sénégal jamono ji daal mu mel ni ayu bés yaa ngi wéy waaye lu ñu mel daal chaque jour ñu daal di ko fay gis mu mel ni jamono ji réew mi daal réew ko risque cote la ñu ko mën a duppe addu jëmale ci enquête yéenikaay mi xëy nag ne fàng ci xëtam bu njëkk njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xamante ne daal jàppale nag ni moom dafa mel ni fi nekk ni daal xel yëpp a ngi bàyyi ci moom gët bokk na ci nag gouvernement yu yees yi nga xamante ni daal moom tab na ko waaye daal li nga xam moom moo weesu ci ginnaawam Bassirou Diomaye Faye ak yokkute fu njëgu dund gi bokk na ci nag la nga xam ne daal ñu ngi koy dund àlla jan bokk ca UNACOIS loolee euh, di ab solution Momar Ndaw ca Ascosen la mu xam ne moom mooy am nañu ay commerçant yoo xamante ne ni ñoom ma gis nañu daal a maximum de profit te tàmm nañu daal di ko ci gis ci ñoom coordination nationale de régulation des loyers moom la muy sàkku moom mooy ñu gën a yokk ay euh, moyens bokk na ci la nga xam ne loolee la enquête yéeni kaay xëy dëxëñ ci xëtam bu njëkk ci niya yenu nañ leen ca boru formateur Informateur yéenekaay mu mel ni nag xiif ga tàmbali na bu ñu sukkandikoo rek ci suñuy naataango soxna yi le ba fut yéenekaay bi nag lim lim ju am solo boo xamante ni daal ne nañ bu ñu moyta ñoom daañu gën a dugg ci jafe-jafe ndaxte lu ni mel mënees nañu ko gis daal diggante Pikine Dakar Mbàkke ba ca gin gi neew jàpp Kédougou Linguère ak Goudiri Le Quotidien Le Quotidien ci xëtamu njëkk ne na fa fàng Pierre Goudiaby Atepa moom nag jàpp na rek ne jamono ji sàndi nab xeer wu rëy xeer woowee nag du leneen lu daal la xam ne ni jamono ji daal la taxawal nañ bépp liggéey boo xamante ni daal moom la gisoon ca boruk euh, wax état bi daal di nag janoo ak ay risque contentieux judiciaire maanaam nag ay jafe-jafe yoo xam ne ci wàllu ko yoon lay nekk fas yéene rek tukkee ci lu ni mel mu mel ni daal la moom Atepa waxtaane na lu ni mel la Vox Populi yéene kaay moom moo ci xuus nañu nag jomaay ak Sonko daanaka daqal nañu lépp loo xam ne construction la ca boruk corniche bi domaine public maritime am nañu ay jafe-jafe roi du Maroc moom tamit ci wet gi jàppale nag ne ñeenti téeméer ci ay immeuble daal di rek tasaare ca booru littoral ga loolee ñu jàpp daal ne suñu wet daal Alassane Ouattara mu nga ca moom mi daal di dégager daal lépp loo xam ne daal jotoon na ko fa mbëbët bokk na ci daal jamono ji la yéenekaay bi waxtaanee ca booru ko comme tam moom Atepa jot na ci dellu si rek di waxtaane nag mbiru ko investissement ya moom projet ba nag du leneen du daal secteur privé ne ndimbal la nar a tukkee ci autorité la mu xam ne daal moom mooy daañu ko saytuwaat bu baax a baax mel ni daal jamono ji itam njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko ci xaar ndaxte société civile la nee na nag euh, def ko sas rëq ca euh, mur ba jàppaleen daal ne jamono ji buñ koy xayma euh, lépp loo xam ne daal engagement am la woon ci wàllu élection yi léemu daal di ko fi waxtaane ñu ngi ko ciy xaarandi bokk na ci daal lépp loo xam ne daal moom moo jëm ci nañu ye ak yeneen yu la réew mi eh, yéenekaay la mu ci wax daal moom mooy Bassirou Diomaye Faye dakkal na lépp bokk na ci nag mbiru ko construction yi la ci corniche ba na ko waxee mel ni eh, loolee bokk na ci daal ci eh, coow lay wule ñaay boo boobaak léegi na ni dem ba Ousmane ko jaare ca booru rajo télévision bu Sénégal lépp moo actu yéenekaay ñëwaat ak ñu nag soxna yi de nga xam ne daal kenn gisul leen ci bile ko wala boog jafe na diggante nag naqar ba nga xam ne daal am nañu ko ca ak yéex a wala boog bi dante na ko yéenekaay bi duppe ñenn ñi sax patt pataaral rek la ñu mujjee def mu mel ni jamono ji yëf yi tar na lool ci seen nag euh, boor rapport of nag tam le point ci yéenekaay mu ngi cay waxtaane nañu nag jamono ji daal euh, bu fekkente ni yëf yi ñu koy xayma of nag convoqué waaye tamit limul ki nga xam ne moom mooy Mansour Faye ñu ne fàng ci xëtu yéenekaay bi amul benn rapport of nag boo xamante ni tamit jot na visé bu ñu sukkandikoo suñu naataango daaj bu ministère Aliou Sow tamit njiit la jàppleen sal nit ñi job si tam bokk na ci nga xamante ne ni of nag lim na ko mooy tamit moom nag ni ab député assemblée moom may ki nga xamante ni daal dafa mel ni moom la ñuy interpellé ci coowal lu ni mel l'exclusif yéenikaay moom nee na fàng ci xëtamu njëkk wax waxeet bu élimaanu jëwriñ ya du keneen ku dul Ousmane Sonko ci mbiru ko appel à candidature yi la bu fekkente ni nag loolee mënees nañu ko wax rek Ousmane Sonko ko la ñuy waxtaane ay démb yëpp ñu jël ko rek daal di koy tasaare jamono ji ci xarala yu yees yi na mu taxay woon démb ak na mu nekkee nag tey ji bokk na ci la yéenekaay bi xëy dëxañ tey ji ci xetam bu njëkk waxtaanee euh, tiis bi nga xam ne euh, lépp mooy yéen xëy na rek fësal ko ji bokk ci nag euh, ki fi jiite woon rek Ageroute di Ibrahima Ndiaye moom nag daal di ji boromam yéen ñu naan xango nag des rek di ñu xam ne ne moom jot na rek jiite ni mel nekkoon ab au niveau mi nga xam ne daal yóbbu na grand travaux projet autoroutier yu ko Sénégal yéen bi nag nañu moom def na liggéey bu am laata mu fee bàyyeekoo ñeneen ñu fi bàyyeekoo tam jur coow bokk na ci ñoo xam ne libération yéen kaay xëy na leen fàng ci mu njëkk mu bokk ci nag mbiru accident donc yii lee yéenekaay bi des rek di ñu xamal ne gën gaa néew ñetti euh, ñetti junni ci ay doomu aadama ñoom ñu ngi faatu rek ci loole ah, di lekkal accident bu ñu ko xaymaa nag loole diggante atum 2017 ak 2020 la ci période ko 2021 2022 lim nga tam gënës naa takku bokk na ci daal la nga xamante ne ni ah, ñu ngi ko ci waxtaanee OMS di xam ne daal ne bu ñu ko xayma askan wi leen ci ci faatu dëpp ñoom ñëpp nekk nañ ñoo xamant ni daal ci voie publique bi la ñu nar di euh, nemmee ko liñ ki nag li ci gën a doy waar moom moo ñu ci bëri ci euh, Dakar gi la law mel ni daal jëye bi jóg jógaguñ ci boobaak euh, léegi Idrissa Gana Gueye di doomi pendanaar bi moom tam dafatina jaloore léegi ni eh, ci yu bés bi tax na tofis yu Everton daal di nag leerlu rek bu baax a baax ne léegi ni déwén nag daañu leen gisati rek ci loolee di Premier League ndam nañu am benn bal ci dara seen diggante digganteeg eh, Brentford bit ba nag ko dugal du keneen ku Idrissa Gana Gueye mile mel ni daal maintenir na leen bu baax a baax ca boru l'Europe ba léegi rek Arsenal ak City am nañu ndam mu mel ni daal foofa eh, ñii di bi daal wéy gën a métti diggante Barcelone ca baruko Espagne moom daanaka bu amee ndamte ji rek dana delluwaat ca loolee di ñaareelu ko place ba Paris Saint-Germain moom nee na coppet loolee di championnat de France yóbbuwaat ca baruko Paris ci wàllu ko làmb la ñu koy ndarkepp kurpeñ am na toog am na kookee du keneen ku dul Alioune Seye mi nga xam ne daal làpp na démb kookee di Quench da ko dóor rek juróom benn simili la ñu daal di bëre mu daal di koy fëgg mu toog jàpp leen nag ni bokk na tam la ñu nemmeeku tam ci diggante euh, keke Didou Sané ak Garga 2 moom mi nga xam ne tamit daf ko dóor mu daal di wàcc yéenekaay bi nag ñu jamono ji fu nekk la kurpeñ yay jógee ci bileeka làmb ji ana naka nag ñii di mujje wala bokkan moo leen di tey bokk na ci laajoñ ca sàmp waaye jàppal ne lii Leewtoo yéenekaay xëy fasal ci wasub tey jii na solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu lay jaajëfal sant ngërëm ñën na la yow ba ëllëg incha allah ci yeneen yéenekaay lay doon merci beaucoup ko Ngom mbokk yi bu ko defee ngeen des ak ñun ñu dikkaat ci plateau bi léegi-léegi rek bu bàkk bi noppee ma dalal samay naataango